fee ñëw yàgg fee teewe eh, taxawaay yi nga taxawaan tey itam bokk na ci taxawaay yi gën a rafet yi fi fekke dal na bu baax a baax ci daje gi yow ñi ngi daje ñi ngi door a yow fii tey waaye yaakaar na fii dafa tàmbalee ñëw di seer réew la ëpp na fukki at ñaar fukki at sawar na ko waaye tey nag mm, gisaat bu bees boo ci ubbi boo xam ne dalal na suñu xel ci ci sa jataay fii ci émission bi kon nag yàlla na yàlla taxaw ñu ngi sant bu baax itam nag euh, ñi nga xam ne ñoo ngi seqal liggéey bi teref yi moom yàgg na moo seq liggéey bi moom toorkal mm. defal la ci yees yeesal yu bari yoo xam ne bi mu fi dikkee ci moo tax mm, ma daje bi ñu waja daje nga xam ne moom la ñuy def le vingt neuf saa bu dikkee moom da ci taxaw taxaw mel ni bii nga taxaw ku ci ne la nga waxoon mu taxaw waat la xam foo ca toll. kon nag ñu ngi koy gërëm di sant ñëpp itam. di beral ak cant nag monsieur le maire moom day sunu xarit sunu wëllëre noonu mu ko waxee bare na ñu koy teg fii ñoo xam ne li tax ñu koy teg loolu mu wax moo tax teguñu ko en tant que maire danga ko teg en tant que taalibe Serigne Abdoulaye boo xam ne daa bokk ci kër Serigne bu Fajar boo xam ne ba mu nekkul ci maire bi màggal gi ma saa dañ ko daa yónnee ay lettre di ko teg ay mbir moo tax saabu bu màggal gi jotee daanu ko teg loo xam ne maire bi taxul ñu teg ko waaye télé bi ngay tax ñu teg ko xam nag loolu ñu ngi koy gërëm baax di sant ñu ngi sant yi nga xam ne mooy comité organisation bi nga xam ne ñoom la àndal ñoom nga xam ne saa tollee fii ba egg ca màggal ga dañuy bàyyi seen it yëpp di xëy ci seen xarit ngir mën a defar bis bi ak lu ko ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci turu Serigne Cheikh Mbacke di sant bu baax a baax di leen xamal ne kontaan nañ bu baax a baax daal ñu ngi sant bu baax presse bi itam nga xam ne fi ñu ko tàmbalee ci CRD bi ba keroog ñu egg ci cérémonie officielle ba saa bu ñu leen soxlaa ñoom ñëpp dana ñëw fekk si ñu ànd ko ñoom ci liggéey bi kon na leen di gërëm te di leen soññ ci taxawaay bi nañ ci jàpp lu man lépp mm-hmm. kon baag ci gàttal daal lii leen doon wax gouverneur di leen sant baax di woo ñëpp nag ci bis bi nga xam ne ci leen jëm si muy bisu Cheikh Abdou koo mm-hmm. xam ne si liggéey yàlla ak liggéey yonent ko Sëñ Tuubaa rek moo doon ay tànkam mm-hmm. nit ko bëggoon ñëpp amul doon noonu fu baax fu mu lu mu dégg ak fu mu ko dégg mel na ne moo ko jëf mel na ne moo lu ko jëfal noonu la bindee woon lu baax rek la bëggoon doon nitu jëpp moo tax saabul accès ci bisam bi ñëpp dañuy jàpp ne seeru bisa kon nag ñu ngi koy yëgalaat ñëpp daal di ñaan ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaan rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te ñaan sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy suñu jëwrin alxalifatu am di say yàlla yàgg suñu kanam ñaanal suñu seex mi nga xam ne mooy suñu jëwrin sëñ Bokar yàlla yàgg suñu kanam jërë ngeen salaamaaleykum wa ñaari weer képp ñu dem ci grand magal kon beeg lépp lu ñu fi def daanaka day waajal grand magal daf ñuy dimbali moo tax fii CRD bi am nii fu baax la lépp lu ñu ci def rek du luñ ko yàq wala luy naxasaay ñu dimbali ci kanam bu ñu àddina yépp wuyu see kon boog lu jëm ci wàllu sécurité waa sécurité bëgg nañ mobiliser lépp lu ñu am. ci ay nit indi ko ci ay barrière muy xam police mu xam gendarmerie ñoom wax lañ ko léegi sapeur pompier waxi noppi lu jëm ci Senelec moom parce que nee na ne dina dimbali ñëpp ñi nga xam ne déposé nañu ay demande waaye dina am équipe maintenance boo xam ne moo fay ne boo lépp loo xam ne rek nar naa paan wala nar yàqu mu taxaw ci ginnaaw ba ñu defee dëkk bi hors délestage si seen ay pexe ñoom xam nañ ni ñu koy defee ba nga xam ne Euh, courant du fi coupé loolu dal na xel ma boole si ne ñoom sax taxaw nañ jàppale sapeur pompier ndax sapeur fi nga xam ne day inondé daf ci am yoo xam ne dañuy soxla ay jumtukaay liñ naan électropompe électropompe ni ko comme li ko tur bu yoo ñoom courant lay daw il faut que Senelec wàccal leen foo xam ne moom la ñuy branché pour mën a pompe ñoom dinañ leen ko defal sapeur boo leen jógee. di ngeen dem ci Sénélec parce que loolu moo des soo leen demee ci ñoom pare nañ pour ñëw wàcceel leen ay descente ba ngeen mën a branché seen machine mu pompe lépp rawatina nag boori kër sëñ euh, Bas porte parole foofu ay ñaar fukki at foofu moom daal dëkk ji inondé yaakaar naa ne te jege na fu nga xam ne ONAS def na fa euh, système am bu ko defee ngeen def fa rek électropompe mu pompe lépp yóbbu ko ci yóbbu ko fañ koy war yóbbu nawet bi nga xam ne suñu borom dimbali ñu alhamdulilah ba tijji na di indi dara loo xam ne mën naa gàllankoor màggal gi waaye am na ci benn point boo xam ne dafay laaj hydrocureur bi ñu xayma point boobu bu amul procureur dina gêner lu bëri ci màggal gi loolu nag ONAS taxaw na pour teg fa benn hydrocureur mooy ci station Shell bi parce que ñoom foofu dañ ko soxla daf ci dañ fa am projet waaye ginnaaw projet ba pareegul léegi te ndox ma daf fay mën na gàllankoor lu bari dañ fa yóbbu hydroculeur loolu daal nekk na point boo xam ne soxal nañu lool ndaxte euh, euh, bu indee mbënd ak yooyu dina tax nit ñi dem beeg dikkib daf koy gàllankoor dina gàllankoor lu bari dina gàllankoor sécurité parce que nit mën nañ ko bëgg évacuer du ñu am fu ñu koy jaarale euh, plan de circulation bi fi oto yi war a jaar bu ndox ma fàttee foofu du mën a dem donc inondation li muy gàllankoor moo bari ak naa ne yaakaar ne bu ñu defee foofu benn hydrocureur électropompe bu ñu def ko booy sëñ Bass Abdou Khadre yaakaar naa ne màggal gi du am benn problème dañ mën a màggal ci jàmm euh, beneen bi mooy wàllu ndox xam ngeen ne itam màggal gu day na ndox daf ko yore waaye nag dañ demoon dañ amoon ñetti forage yoo xam ne ci Touba euh, actuellement dafa paanoon waaye OFOR jàpp nañ ci ba bi ñu defee réunion fii dimbali nañu ba indil nañu pompe bu bees ba benn forage bi pare na mu des ñaar yu forage yoo xam ne ñoo paan benn nag muy forage yu Bagdad boobu moom munul ñàkk baax avant màggal ndax comme ni ngeen ko waxee léegi euh, lu bari def ci dugg mu und lu bari ci barke waaye ci stratégie maanaam munul ñàkk am na ñu fi joxe kàddu ne parce que kenn nañu euh, euh, jënd pompe daal di ko ci def ndax mu mën a baax loolu laan wax léegi. baax na ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaye ñu baral seen loxo tuuti ginnaaw yor nañ njëg pour dem jënd xàmmee nañ lu baax xàmmee lu xaw a yées xàmmee loo xam ne kenn waru ko jënd xëñ na mën naa ñàkk mais lii baax nañ ko teel a xàmmee te dem jënd ko comme mu ngi ci marché bi nekkul cim réew mu ngi senegal te xàmmee nañ ñetti qualité yëpp nañu jubal ci qualité bii gën daal di ko jënd installé ko ci semaine bi ndax mu gi euh, màggal gi quinze jours moo ci loolu laa doon wax léegi ne baax na naam waaye liggéey am na fooy toll dangay baral sa loxo mën naa baral mën naa gaaw te baax donc nañ baral suñu loxo te mu baax loolu mooy euh, euh, message bi ma leen di lancé ci côté boobu ONAS tam euh, am naa yaakaar ne comme ni ñu ko waxee defar nañ seen jumtuwaay ba nga xam ne fépp foo xam ne ndox mënoon na fa taa di yàqal nit ñi ci dem beeg dikk bi ñu daal di ko defar eaux et forêt liñ fi wax laa mën a jàpp mooy euh, euh, autorisation yi daana tardé daana ñëw sax waxtu woo xam ne kenn du ko mën a jëriñoo mais moom li mu wax mooy dinañ fexe ba mu ñëw ci semaine bi maanaam xëñ na dañ jot kon 10 jours avant lu bon bon alors que ay 3 jours avant ñetti fan lañ ci daan jot daaw ñu ko mën a jëriñoo moom nee na dina góorlu ak direction euh, de l'environnement n'est-ce pas des eaux et forêts ba ñu mën a jot ci autorisation yooyu loolu laa mën a jàpp te loolu moom ne ko ñëpp dégg te xam ne loolu ba ba ñuy dégg leneen loolu daal moo fi moo moo mën a am nañ jàpp loolu te ñaan yàlla loolu mën a am ba ñu mën a jariñoo matt moomu lu jëm ci dowaan yombal gi incha allah dañ leen ko yeggee ba ñu yombal leen démbéeg dikk bi ak lépp loo xam ne daal xëy na dafa jëm ci màggal gi ñu dimbali pèlerins yi ñi nga xam ne dañ ciy ñëw ñu mën koo indi te duñ ci am benn problème service d'hygiène tam ah foofu xel maire dalal suñu xel dina ko jox produit dina ko jox carburant ñu mën a pompe kër yëpp 150 kër yi waaye commerce itam dina ñëw dimbali service d'hygiène ñu dimbalante ñoom ñaar ndax produit yi ndax gan moom euh, màggal bu amee ah lu ne la ñuy gis dañu ay produit périmé yoo xam ne ni dañ koy indi di ko di ko jëfandoo wala bëgg ji ko jaay bu ko defee bu ñu boolee seen doole yaakaar naa ne euh, dugg dina am te ndugg mu baax lay doon kenn doo indi lu périmé wala loo xam ne boo nit ki ñibbee këram day indi loraange loolu dalal suñu xel marché bi li fa war a am dina fa am te lu baax lay doon lu mu mucc ayib